këram. nee na maa jëli ma dikke mi këram. 4 heures du matin 4 jox café sëriñ Saliou moo ñu jox café heure boobu. 7 heures du matin 7 heures du matin. maa la ko wax. la génne Ablaye Wade maa la ko wax. daf ko laaj bi wax ko ko mu wax ah, sëriñ bi. mu ne ah, man day am na lu ma xam. am na lu ma xam. wala lu ma njor. da xam laay mii de da xam laay mii. taalibe gi mu doon taalibe gi mu doon di taalibe bi sëñ Touba. bokk na bokk na ci liñ koy fexeel ci liñ koy fexeel. te yaa fi sëñ Touba te yaa fi sëñ Touba de. lii ñu ko def lii ñu ko def. war na laa naqari war na laa naqari de. war naa naqari sëñ Touba war naa naqari sëñ Touba. xam naa ne kii wax ko ba pare ne ma wax ko ba pare. tiit tiit. ndax sëriñ bi soppeeku na ndax sëriñ bi soppeeku na. soppeeku goo xamante ni nee na soppeeku goo xamante ni. musuma gis lu mel noonu nee na musuma gis lu mel noonu. bëgg Serigne Touba da lay bëgg de. ni ma ni ma. naqari na ma. naqari na ma. naqari na sëñ Touba. naqari na sëñ Touba. ni bëreet. ni bëreet. ama fa maag ma dikk. bàyyi ma fa maag ma dikk. dem fatu ji dem fatu ji. toj na gaas ya. toog ba mu yàgg. nee toog ba mu yàgg. mu dellu si fekk ñu ko mu dellu si fekk ñu ko. ni ko ni ko. loolu muy def. loolu muy def. nee ko bu baax nee ko na ko bàyyi. ndax xiifal sa bopp. ndax xiifal sa bopp. lu la ci fekk lu la ci fekk. xaru lay nuru xaru lay nuru. waaye. waaye. nee ko mu déglu nee ko dama déglu rek. yàlla. yàlla. def ma seede. def ma seede. ñu teg ca sa ñu teg ca ëllëg sa. kii xamoon na sama diggante kii na sama diggante. ak Ousmane Tanor Dieng ak Ousmane Tanor Dieng. ma dem bureau nee ma dem bureau. fi ma toog fi ma toog rek. la di Diouf jóge bureau la Abdou Diouf xam nga moo daan woo bi Tanor. te xam nga moo daan woo Tanor. pour Tanor ñëw bureau moo ñëwoon boppam nee na moom moo ñëwoon boppam. ndax ñëpp jóg taxaw. mu ne ana Ousmane ñu ngi ko mi ngi ci biir secrétaire bi daw secrétaire bi daw bi Ousmane daw génn Ousmane daw génn maa ngi taxaw nee na maa ngi taxaw di dégg mu ne ko il faut libérer Ablaye Wade mu ne ko il faut libérer Ablaye Wade rapidement et immédiatement maa ah, ko waay sëñ Saliou communication communication avec Dieu sans intermédiaire ñu jógee ca ñee ñu jógee ca bëgg Serigne Touba na leen bëgg de déglu leen déglu leen président Ablaye Wade entrée gouvernement président Ablaye Wade xuloo bu rëy bi fi amoon nee na xuloo bu rëy ba fa amoon. ci sama kër. ne sama kër. deux heures du matin deux heures du matin. ma dikke ma dikke. man man. Tanor Dieng Tanor Dieng. Abdou Aziz Sy Junior Abdou Aziz Sy Junior. Alaaji Mansour Mbaye Alaaji Mansour Mbaye. mi ngi dund mi kon kii ne kon li ñu ànd liggéey. Eh, li ñu ànd liggéeyal nag. bari na bari mu doon nag sama rak. nee mu doon nag sama rak. waaye mu doon sama xarit. nee nag mu doon nag sama xarit. doon sama mbokk taalibe. doon nag nit baax. ndaxte baax. ndax baax. mi ngi yem mi ngi yem. ci yaakaar sëñ Tuuba. ci yaakaar sëñ Tuuba. dama dikkee. dama dikkee nag. bokkuloo dara. nee na bokkul ak dara boolewul dara boolewul dara ak sëñ Tuubaa boo ko bëggee ñaawal sax boo ko bëggee ñaawal sax barke sëñ Saliou nee barke sëriñ Saliou nga koy ñaawal nee kon loolu garaat mu ray nee kii daal sëriñ Tuubaa rek la gëm lii mu fi indi nag nee lii mu fi indi nag lu ko fi de bu yàgg a yàgg bi président Abdoulaye Wade nee na li président Abdoulaye Wade taxawalee lii taxawalee lii jël alal bari def ci. jël alal ju bari def ci. jël bi jox ñu ko. jël pàkk bi jox ñu ko. comité bi mu tëraloon. comité bi mu tëraloon. trésorier ba. trésorier ba. Pape Diop la tuddoon Pape Diop la tuddoon. adjoint ba ba. ma bi ma dikke bi. lettre bi ma jox léegi. lettre ma jox léegi.

ñi jëkk a joxe xaalis ñi jëkk a joxe xaalis. moo am solo moo am solo. ca la bokk ca la bokk. ci la nu fekk nee na juróom fukki million. ci la nu fekk kon lii mu indi. nee na kon lii mu indi ko. booba ba léegi. booba ba léegi. génne wu ci loxo. nee na génne wu ci loxo. kon barab bi. nee kon barab bi. barab ba mu li fi am. te macha allah. li fi am li fi am. nee ndamam la. te moom te moom. lu ma am lu ma am. moo ko moom ndam lu ma am nee ndam lu ma rek moo ko am nee bu ma sañoon lu mu bëgg rek am moom it xam naa ni bu sañoon lu ma bëgg rek am nee lii moo ko daan nee lii mu nekkee nee màkk ko daan ñaanal kon nekkoon nag duñu ñaar ñaari taalibe sëñ ñaari taalibe sëñ Tuubaa la ñu de waaye benn jëm la ñu kon maa ngi koy ñaanal de kon maa ngi koy ñaanal ak bëggam moo ko xam moo ko xam yàlla ko yàlla ko yàlla amiin waay yàlla barkeel njaboot